na ko bi ma ne ihdina siratal mustaqim day damaa jàpp ne saa daa taxaw saa borom jël siraat gàcc ko ci jahannama ma bëgg a jéggi jéggi leen yéen sama ginnaaw bëgg a jéggi jéggi ñi ma yaakaar te juddoo ko Cheikh Massamba ne dañuy julli bi si njareeb yàlla si taw taw bu bari mu julli ba sëlman na ko Massamba mu ne ko Mbakke mu ne ko julli muy taw de xanaa lu metti la mu ne ko waaw mu ne ko am na lu ko gën a metti sawara wuy takk ci ko fay safara muy takk ci bàmmeel ko a fay te ko a fay Cheikh Mamadou bi day am neew bu metti tab bu metti da ciy nekk muy jàpp mën naa masaa ci kaw. waye boo da koy bomb nan ko ayyatu khaliyat yow ben loxo bi ben nga dag ba nga wir jaamu bi yalla la luma digal lay def. bu jappé ba nopi da ngay gis fim doon jappé ni fi tok dara di di nek ak deti seigne makhtar Maxtaar nar, Jeng neena ci gànnaar dafa tawat tawat ju diis ba bu beugé jóg day bëri bëri nee ñu ne nañ ko neub nodd gi tey jiite Sidi abdullah waye neena buñ noddé luñ gaaw gaaw nañ fekk seigne touba ci kanam jakk ci ski ko yàlla daf ma defal tawfiix bu waxtu wi jotee suñu borom day teggi nattu bi jox ma kattanu goo xam ne ñaar fukki ak juróom waaye bu waxtu wi jàllee nag bu nattu bi doon téeméer da ciy dolli beneen téeméer muy ñaar téeméer jaamoo na yàlla fu ne jaamoo na yàlla nu ne. radiyallahu anhu bis bi natt gën a tar yàlla lay taxaw ci tam ba muy jàkkaarloo gouverneur général allahu akbar la wax. ba taxaw ci dakaru rob ko jam allahu akbar la wax ba muy ci geejgi allahu akbar la wax neena guddi gi ma jekke fanaan gabon melna naa fa néew bu tàbbi ci bammel ay bokkam ñibbi gisuma fu ko xam yàlla gisuma ko yuul koor gi ñuy yaata yumbe koor gi mu jekke a ma yomba keroog bi mu taxawee di lok weer wi seen ko amul ndog amul hmm. xëdd mu ne weer waa ngi di sama xarit di sama soppi xeyit xëyit de ya xeeru day fi nga day ba ngon xobi garab lay dag di ko su muucu suju sujal ko muucu ndox mi yàbbi garambay ca maa yomba di ko tatagal nag yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi la silta dayfan kariman zairan abada muazaman bi xalaat taati wa zanadi yaay weer wu mag yaay wu tedd ñëwal ëtt baa ngi yaatu na te amul ndoo ko amul xëdd ba ñuy maaj muy taxawal faratay boromam monsieur fu la jëf ba waxtu baa mu tiim du juyoog boromam baa mu xëy fàtte waa Touba histoire sëñ Touba situation bu metti ak circonstance digënté bu xat ak la yemale xameewul farata ju jot ak sunna ju jot ahmadu rabbi bi khayri sunnani ba'd al fara'id wa yoxli mi ne musta bolé yàlla ak dar da am ku ñëw nako ko man de bu yàlla wéy yonent bi wéy sëñ bi nako ahmadu wéy la ilaha illa allah bu yàlla wéy yonent bi wéy ahmadu wéy dana wa annani ni abdun li rabbi wa khadim lil muntaqal li siyadatu من ما جامو يلا بيلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وخديم يلا ما ترى لنا ما يخرت رسول الله ما يشوفه ما يكوي لقيه جعلتني عبد الله وخديم الله اللي سيادة تدوم الله ما دفع عبد الله دفع ما يخديم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسين باب لقينا يم تسين شو بنا دون جمرون عبد الله وخديم رسول رضي الله عنه يعني ما نمشي ما لو أهلا بيشين برامي ما نمشي راقي بقعتين bët bu set dana dem ci yàlla seeral ko ne ko ahmadu bi mooy abdullahi wa xadimi rasul radiyallahu taala inni abdullahi jalla wa xadim lil mustafa allazi atalahu yadum yashhadu li bisa raqibul wa atid fi kulli yawmin ina séanceil majid ñoo ñoo gën a jege gaa yi ndax ñoo ne ci seen i mbagg sëñ bi nee na waxtu wu ne ñoo may seeral ne ahmadou bamba mii mooy jaamub yàlla nee na noonu yi sax xam na ne maay jaamub yàlla alimatul ahda inda al muxrixaat benn ni abdul munil xayrixaat baana lahum kaw ni xadimal muntaqa alayhi taslima ka yaaman intaqa yaa ngi ci Abdoulahi de. mi ngi ci Abdoulahi ci wéetal boroomam bokk na ci loolu mu mel maqaamu humbu dee moom i am. Mm-hmm. Serigne Touba moo ne. Mm. shahidu anna allaha rabbul xalq mm-hmm. wa anna ahmada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dane xawliya laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu illahu sëñ Tuubaa nee samay wax nga bëgg a xam saay wax mooy yàlla mooy kenn rasulullah la yónni sallallahu moo tax mu ne maa seere ne mm. yàlla mooy buur rasulullah yónni bi dëgg mu ne yàlla moo mel ne xoolal رب الخلق وأن أحمد رسول الحق سبحانه صلى الله ربا لمسلك السديد هدى باختيار سفر العبد المالك الديان سلعة المجيد المبود المعيد ذي البرش الشديد الخالق الإنس والجن معه ليعبدوه مخلصين معه برب كاتنغ برب منغ موسوس نيت نيت لب كوكو مانغا خامني مو جامو يالا تخون بين نيت موخ بوبام نا سي سيري اولوهيه غو خامني اك روبوبيه غو يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لشر هناك أني رديت بك ربا حالا بيني وبين ماكن القصالة ما شاء الله يا الله سيرال من من مسب جام لا بو خامنا يوري ياسرو الله ربي وولي أبدا عصمني من كل من تمردا الله سما بروم موي سما كليفة ارتي كيب كو كتبرلي رضيت بالله تعالى ربا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا موم لا لي سون بروم يونتي عليه الصلاه والسلام موي كي خلام موي يونتي الله ربي ولي ابدا عبدته وغيره لا اعبد يلا موم موي سون بروم موم كيب لا جام تو كودول موميت دوما لا جام كل ربي في سر وفي علن ولست اصل غير نافع الله دوما لا كين كودول يلا يلا موم موي سون بروم بكحت سمت فكفني كل ضرر bijaahi wala yasiril busar ata akuna abidan shakura ridan habiban muflihan mashkura ci yow laa wéeru jox la sama bopp ci daraja yonente bi aleyhi salaam ba nekk jaamu yàlla bu yàlla sant doon ab gërëb soppeem boo xam ne gërëm la yéene naa di la jaamu waxtu wu nekk ndax nit dana ne ci dara sax mu metti mu yeexalu waxtu waaye Serigne Touba loolu bokku ci mbiram jaamu yàlla ci di ko kañ jaamu yàlla ci di ko jaamu jaamu yàlla ci defar mbinde fi jaamu yàlla ci mbinde fi xam nga yëmul ci jaamu yàlla ak bopam kep waye day jaamu yàlla sax ci mbindeef yi di len dimbale du fayanto ba nopi wakilu ci boromam waxtu wu nek li tax mirum Serigne Touba di yéeme radiyallahu taala dana ahbuduhu insha li wafat bi dhikri hakimi min ghayri tifat dama koy jaamu te jaare ko ci alquran da duma gessu bama fi bayiko yàlla nak na nga seeral jël na sa bop dénk la li tax Serigne Touba kenn mënu koo róor لأن ليست بأني قد جعلت نفسي لك ولي هذا فكيف تحبتي معتصما بالله والرسول صلى الله عليه وسلم مولي كون لولو دا كاي واني تي جوخ يالا بوبام اك وكيلو يالا بروم غيسغا كيرو بيمو جيمي جوغي لوغا جيم ندار بيمو جوغي جيوال جيم لوغا دا فا ام تي سولدار يي كو داو با داب كنوكو لو مان تي موسلاي نانكو ديف لو مان تي نيان نانكو ديف توبا بي سين بيخي باخول تا لين يينا تي رافتو سين بانيو وي mu demat ba yàgg gendarme bi dabat ko wax ko sëñ bi bamuy ñet ñett mi nako fu yalla nekkul luñ def baax na. fu yalla nekkul lu def baax yalla ngi fépp. am fu yalla nekkul lu def baax na. nga kon lu lu xew rek. day nu ngene lola euh dogalub yalla borom bi la. Mhm. jaamu yalla tax mu ne hubbi bi wa bukhdi fihi li awsala ma kuntu astafi bëgg ngir yalla ak bañ ngir yalla wa matalama lepp moy bëgg du bëgg ngir intérêt du bañ ngir ngir en ko buy bëgg day bëgg ngir yàlla buy bañ la muy bañ mooy ko nakk nakk topp ci yàlla noonu mu mel ci di ko liggéeyal di di di jaamu boromam te lépp di jaamu yàlla boromam subhanahu wa taala la egg ci ne du ma tàllal sama loxo mukk xoola xasidaam nga xam ne laa astaki duru lil maxluqu mujtadil min baax di kaw nii abdullahi bil xafal du ma tàllal sama loxo wala jàmbat ci mbindee fii mukk ginnaaw ma doon lay jaamu yàlla lu mën a métti ci moom nag du jàmbat yàlla lay jox léppam daan na nan lay tàllale sama loxo ci ñoo xam ne ba may nefe ñoom seeni xol wow na bu mel ni ay doj noonu mu mel nag mu ne nag tàllal loxo ku dul yàlla ak réer la ci man mat di yeddi li xëyri dil jalaali ande min dalaali wal idlaali <laughs> moo tax du tàllal loxoom kenn wala mu sàkku ci kenn dara diiru mu ne ci tubaab bii ba ñibbi si ña ci géej gi mu sa am jënn yitte boo leen ko mbiram mépp daf ko bàyyee boroomam subhaanahu wa taala ndax nee na du ma wéeru ci yàlla ba noppi di wax keneen dara na ko tàllal naa sama loxo jëmee naa ko ci yow te du ma ko tàllal it ci keneen ku yow ndax fal manu wala ixtaahu xat an min ka laa min siwaaka waralitu an ka joxee ñàkk moom yow rek yaa ko moom kon loolu doy na ci wéetal yàlla ci wet gu nekk